صلاة الذي في كل سهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحس والسفر ñu ngi fi ci xabru soxna maymunatul kubra soxna maymunatul kubra nak bokku na ci jigen ñi nga xamantene ne won nañu len ci walum jaamu yalla ak top yoon yi nga xamantene ne yoonu cheikhul khadim serigne touba mbake tay ji nak ñu taxaw fi ci wam di nemé ko ci nit ñi nga xamantene ne nañu fi ngir ziar ci ko waye itamit ñew ziar sohna soxna su mag si dama ñew fi siaré ko di dal bëgg dug sama barab yi bëgg a sama sama sëriñ waaw tanki metti na waaye rek lool mom mënu mënta ñak ci man ñu fi nekké nun daana jàngalé alquran daana digle lu baax euh talibé dañ koy ay xalé pour leen yar yar bu baax dugal leen ci yoonu l'islam loolu rek ci lañu jëk contané contané nañ ci mom bu nu dan ko ñaanal fukk xul ak ben ak ñi fi nekk bokkal nekk ñëpp waa do bépp lu bax rek la fi nekkee won ay jugge kess ma ñewon ziar si soxna May Mbàkke ñak ko ziar mom heureux la mom bo ñewé fi mom il faut nga ziar ko nak borom bax la te lu fu way ñaan yalla def ko mu nang ko. soxna si nak mo la fu tax ñu sant bu wër ndax deung deung bu ci soxna yi tindina na ko allah suñu njabot yépp mo leen yar ba ku ci nek ci ñoom tay alhamdullah ñu nga lay simil daal la kon nu ngi ñaan yalla na yok leeram ci barsàq yal na taas ci man mi da dem na uh, fi paroxan ma dem lu indi ma dem dalam soxna Bali bi mu fi bayyi ba mu paree mu jox ñu ndékki ñu ndékki ba sour ñu wekk bagage ci duggal ci auto bi ni acca leen téléphoné ci kër gi. ñu leen togg leen ay njogonal balaa bala noo agsi loolu dama mën naa ko seedeel moom maa ngi leen ñaanal rek yàlla xar leen àjjana tas seen barke ñu yàgg fi lool li leen yàgg a siyaare jàngaleem lu ñu ci neex mag yi dëngoon sax jubbanti na leen gone yi mu am defar na leen cay sant bu wér di ko sant bu wér di ñaan ci barkeem yan nañu yàlla jàppale ba njaboot yi mu yi mu bàyyi ñu mën a taq ci ñoom ba ñu dey ku sell ku am diine ku am lislaam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 safar